Pape Diouf dans le seet si gannaaw bi nga xam et démb ak euh, tey gannaaw suba ñu ngi euh, célébrer Sénégal ak ci journée mondiale de la lutte contre euh, le tabagisme journée mondiale contre le tabagisme yow la ñu jël ñu def la ngay ngay ambassadeur muy une consécration de plus ci sa carrière tey jii lan nga bëgg a wax euh, ñi nga xam ne ñu ngi tux cigarette ci adduna bi ak ci Sénégal waaw jërëjëf man aussi maa ngi lay fay di nuyu bépp internet yoo xam ne ñu ngi suivre partout dans le monde euh, di leen ziare ci weeru koor bi di leen baalu àq te di leen baal àq et euh, nomination boobu nga xamante ni le ministère de la santé noom def nañ ma ko Euh, pour ma ambassadeur lutter contre le tabac euh, plaisir pour mag la moi, euh, parce que confiance la il y a bu ñu ànd ak Pape Diouf leader de la génération consciente mën nañu Pone, pon man tamit ma am ci avec le ministre Eva Marie Kolsek et le docteur Omar Ba avec toute l'équipe nga xamanteni ni ñoy lutter contre le tabac donc ma war and ak ñom talen len loxo aussi ñu jàppale ma parce que ben lam rek mënul yëngu ci bir lolu aussi ma ngi talal loxo la presse sénégalaise parce que euh, on ne peut rien faire sans la presse ndax communication la laaj bo xamanteni il faut que la presse y mette donc ñu andando xex lolu ngir mëna challenge bobu ñu mën ko daaneel. waaw euh, Pape Diouf buñ koy wax ya ngi joggé ci Pikine banlieue bi nga xamné euh buñ koy wax muy Pikine ak tabagisme ak lepp lo xamné xétu xeetu tabac la. Hmm. def na fa ravage ci population yi. tay ji yow bo génnee nga mëna am discours bu melni euh, dans le rétroviseur qu'est-ce que tu as envie de dire à ces populations là. waaw ouais, bon xam nga tay loolu du Pikine rek du banlieue bi rek c'est vrai que je suis issu de la banlieue mais c'est pas parce que fléau bi fofu le EP donc bo xolé c'est partout dans le Sénégal et que euh, du banlieue bi rek. Euh, au Sénégal euh, mais li ci dangereux moy xalé yu ndaw yi euh, fofu bo xayma taux bi utiliser cigarette té bon cigarette da fa nek ñaari facteurs yo xamanteni euh limu yaq ci mëna xayma ñaar la non seulement ci économie parce que bo paquet cigarette bi ngay jënd chaque jour mu jar 500 francs le mois c'est 15 000 francs donc loolu tey am na xaj te am na ñoo xamante nañ 3 paquets par jour wala 2 paquets par jour donc lolo déjà économiquement euh, dina sur euh, sunu développement ñaaral bi ci top aussi bu dé gor nga day wañi sa ngóora day wañi sa euh bu dé jigen nga aussi mën na yàq sa njureel kon donc euh, bala nag affaire bi di la di la di la di la def feebar nga ci am cancer donc euh, tay bo xolé Sénégal euh, dégg ci ci xalé yi dafa bari trop inde nga né euh, nga dégg ñu tàgge la xalé bu fatou et que moins de 30 ans lañ lay wax parce que likoy def moy ñi ngi commencé di tux cigarette dem nañ ba affaire bi ëpp leen doole yak nañ yak na cigarette bi yak na sen poumon donc té à bas âge imaginez un jeune de 30 ans wala moins de 30 ans nga am jabar am ay dom ñu nek ay xalé sa yaay sa papa ñom ñep ci yow nga nek ben soutien de famille ci kër gi donc lu lu amul solo yak. jël sa ba paré nga nax kër je pense que jar nañu ci bayyi xel et que rew nenañu avenir rew té te mëno rew tant que conscience tranquille xalé mëno rew tant que mon hygiène xale mënoo defar réer tant que amoo kàttan ndax kàttan dafa am solo ci ndaw borom li ñu naan borom kawar gu ñuul ñàkkul dara kon fi sa kawar ñuule fa nga amee kàttan ci nga mën a profité pour defar sa deme et loolu nag àndul ak cigarette donc tey ni may gisee ci jàkka yi nga gis boy yi ñoo fay ëpp tey loolu lay rêvé tey vraiment ci jeunesse sénégalaise ñu lutter pour contre le tabagisme arrêter cigarette quoi Par mm. je crois que sur tout le territoire sénégalais. Mm. Pikine Gogo, mon rek centre de lutte contre le tabagisme ou centre Jacques Chirac. Nous mm-hmm. ko feneen ci ci Sénégal wala Sénégal en tout cas. Mm-hmm. est-ce que yow am nga ay souvenirs. yoo xam mm-hmm. ne amee nga ko ak centre Bob ah mais bien sûr centre Bobo, déjà ma ngi leen di nuyu féliciter parce que centre Bobo, ma révélé mon premier anniversaire ma carrière solo me suis mon mon premier album en solo c'était en 2001 J'ai fait def anniversaire bi fait centre Jacques Chirac Il y avait mon frère Feu Ndongolo Il y avait mon frère Abdou Guité Il y avait mon frère Yves donc nous, avons soutenu nañu soutenir ma ci événement Donc, kon centre c'est euh, dañ ko pour lutter contre le tabagisme pour lutter aussi contre la drogue donc euh, tu sais que la banlieue banlieue tous les banlieues du monde c'est des quartiers sensibles donc bañ nañ ko ba fléau bu ñuy xeex euh, banlieue dafa sensible pour nga jaar fofu, pour vraiment yokk sa visibilité li ngay xex tay bo xolé muy côté paludisme dañ naan bon nañ len dem banlieue parce que banlieue yoy fa la ñuy ëppee tu vois donc taataa yi inondation et tout ça parce que dañ naan li baxul yépp ci réew mi soit ñi amul ñi ñak amuñu les moyens ñi ngi dem dëkki banlieue ñi nga xamanteni ni tey euh, ñi ngi liggéey les marchands ambulants ils n'ont pas de moyens donc pour mën fay sen location chambre wala soit kër gu boo xamante moins cher ils préfèrent aller habiter dans la banlieue donc loolu moy waral mobilisation bobu fa nek nga xamanteni ni euh n'importe quel type de sénégalais lambda ñi ngi dajalo fofu donc lolo waral euh, tay banlieue yi nek ci aduna bi yep ñu nek des quartiers très sensibles mais euh, tay ji mm, technocrate yi mëno ci banlieue zari tu vois euh, politiciens yu xarañ mëno ci génne banlieue zari donc homme fort yi mëno ci génne banlieusards ñi ngi fofu ñi ngi joxe bon exemple et que je pense que ni tay ñun lolu ci sunu mag yi ak sunu papa yi lañ ko donné parce que je dirais que ni être un banlieusard une formation parce que tu vois du tout da ngay gis ku bon da ngay gis ku baax da ngay gis kuy bëgg a bon da ngay gis koo tu ni ce jóge bon war a dellu ci mbaax et que cette formation la bonne xamante ni banlieue rek la am et que alhamdulilah. Hmm. Euh, Pape Diouf est-ce que ce mission bi ambassadeur de la lutte contre le tabagisme mënuloon gën a yomb bu fekkee ne autorité étatique yi jàpp nañ si est-ce que nous en un moment ba ñuy euh, voter loi yi nga mm-hmm. rendre euh, délictuel ou mm-hmm. euh, mesures encadrer mm-hmm. la vente et la consommation de la cigarette Oui, mais bien sûr parce que les qui gis ci peu la parce que ben lam rek mënul yëngatu et que bi nga ñi ngi pour vraiment pour lutter contre le tabac je pense que nous... ni euh, d'abord l'état du Sénégal le président son excellence monsieur Macky Sall pour nous jàppale à nous ñu koy parce que li tax ma wax euh, euh, comme j'ai l'habitude de le dire le Sénégal du pas mu pays. du n'est mu un pays. 16 millions d'habitants du pas mu donc pour la communication ci 16 millions d'habitants Djafeoul à condition que nous mettre tous les moyens à notre égard pour vraiment nous faciliter de faire la, communication comme il se doit. Parce que on est prêt pour aller sillonner partout le Sénégal. Diakarlok Ascanui, Wahak Jeunesse Wahak Magni, Khamal Nalen Kat, moi tout les cigarettes. Ndax cigarette, manam djeyi le mena andi, tu dormes Adama. Boudé mën wañi sa ngóora budé jigen jigéen yak sa njuru kay ñaari point yoy rek déjà doyna ci yé doomu aadama rawatina nag feebar yim la mën jox cancer yim la mën jox donc yak xaalis bi nga xamné euh doto am mën dajalé dajale donc ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite et que je pense que il y a des visuels yo xamné tay ñak gis la mais kuko gis te mosoo tox cigarette buñ la ko woné ñu né la kii kat à 42 ans wala à 47 ans la fatou da dan tox cigarette ni la cigarette def xolam xolam ni la mel ni la melone mais bi commencé tox cigarette ni la xol bi mel boo dul tox nga gis image yoy doo ko mës def bu fekkone aussi da ngay tox ñu won la image yoy expliquer la ko je sais que sur le champ automatiquement di nga arrêté cigarette moo man personnellement démb forum bi nga xamante ni demoon naa ko euh, fële Rufisque vraiment je remercie euh, l'équipe bi nga xamante ni woon woon nañ ma di ma visiter loo di ma expliquer visuel yi ma fa gis mais sama yaram da doon daw xaw ma ne woon day cigarette ni lay def doomu aadama donc yooyu yëpp c'est des choses yi nga xam c'est très important ñu am ñu ñu jàppale coacher nous couvrir nous, ba vraiment communication biñ ci wara def ñu def ko mais tamit téwul m'a ngi lancer un appel euh, à la presse parce que tey presse lu mu bëgg mu siiw rek dina siiw doole bobu yalla mayna len ko donc m'a ngi lancer un appel à la presse euh, ñu àndandoo vraiment euh, ñu jappalé ma ci lolu motax demb ba légui sama xarit yi nga xamné ñom dañuy ku ma ci jot rek ne la booy cigarette de ñu rétane sympathiser mais je pense que ni liguey le bu am solo liguey bu reuy le bo xamné mi ngi xaar ñun nous la génération consciente té ñaan nañ Yalla suñu borom dolel ñu ba niñ ko bëggé ak ministre de la santé vraiment ñu défé ko nonu dal gis nañu ci yeneen réew yu mel ni France comme ni nga ko waxee ci paquet cigarette yi dañ ci def visuel yoo xam ne. boo booy bëgg a toog sax daf lay daf lay tiital. Mm-hmm. est-ce que mën nañu dem ci Sénégal ba ñu mën a yegg ci yooyu boo ba question subsidiaire bi xalaatuñu ci yenn réew yi. gis mm. ay firme yu mel ni ay jee marque cigarette yi mm. ñuy sponsoriser ay manifestations de jeunes alors que loolu dañ koy gis Sénégal est-ce que mm. loolu du loo xam ne dafay nasaxal tuuti yow sa liggéey en tant que ambassadeur mais bien sûr bien sûr donc loolu aussi euh, c'est vrai que euh, dina xaw a nasaxal tuuti sunu sunu sunu liggéey hmm, c'est vrai li ngay wax xam naa ko parce que tey boo demee en France euh, paquet cigarette bi ni nga xam ne cigarette noonu lay def dana won woon ay visuels yi nga xamné cigarette bi kat yang koy jënd di ko mais xamal ne nii la lay def donc Sénégal on a juste mentionné attention abus dangereux mais dem forum bi nga xamante ni ko don assister euh docteur Omar Ba mi ko don relater de xamal ne que ni ci jëmi jamono dinañ voter loi yo xamante déjà on va tout faire pour vraiment accès bi pour nit ñi am accès ci cigarette bi dina xawa metti on va mettre des taxes yi nga xamanteni ni pour mu dugg dina metti donc euh, en même temps aussi euh, fexé ba euh, li nga xamné non la cigarette di def ci doomu adama visuel yoy ñu woné ko ci paquet bi donc keroog nak bon lolu c'est technique ñu ko don wax c'est c'est trop technique donc ñom lolu seen métier la xamna naa aussi lolu bu jotee rek ñom dinañ ko def mais nous la génération consciente nous à travers notre image donc, euh, notre mission, c'est de communiquer, c'est de sensibiliser un appel solennel. Donc, on est dessus et, que vraiment, on va le faire avec vraiment beaucoup de rigueur, Inch'Allah. Pape de question que bi voulais poser peut-être le ministre de la santé l'a posé, poser. Mm. mais est-ce que vous avez la. Mm. chiffre exact yi nga acte de décès. wala mm. conséquences euh, sanitaires yu yi le nombre de personnes qui ont fait des cigarettes cigarette Sénégal. mais Barina, parce que déjà démb rek cigarette chaque jour Nous def 000 cas madame quatorze personnes dinañ décédé cigarette donc soit chaque moment les ñu jël ci habitants donc kon dalay Fato maara day taali kon dëkk wàññeeku na lool rek ci xayma jéggi dayo donc je pense que ni euh, yenen chiffres yi nga xamné ding ko soxla euh, c'est c'est c'est c'est c'est technique lool aussi xamna un jour si vous aurez vous aurez du temps avec le ministère de la santé ils vont vous expliquer les les les les côtés techniques mais d'après jour biñ ma takalé sama ndombal tank ak tout feedback yi nga xamanteni amna ko ñing ma koy informer manam 14 000 personnes qui ont été en train de se faire. Et que imaginez le pays du Sénégal, on est 16 millions d'habitants, voilà ce qui est le plus Donc, je pense que si nous avons été en train de se faire, nous avons été en train de se faire. Mena andi aïe yo khamenteni euh, dina djegi dayo et que taï euh, je dirais tout le temps que nous sommes l'avenir de demain et l'avenir de demain du kenoukoudou la jeunesse sénégalaise donc je je vais lancer un appel vraiment euh, dans ñu appeler, nous ci bobo, boobu xeex pon ba mm, même bu fi wut ñu wàññi ko ñu gagné ko bu baax a baax Pape Diouf lan mo waral sa engagement toujours dans des causes nobles parce que bu ñuy wax Pape Diouf dañuy wax ambassadeur de tel ou engagé dans tel projet mais juste toujours c'est des projets de développement c'est des projets d'éveil de conscience lan mo waral lolu bon lolu aussi euh, c'est la population ñom ñoo am confiance ci man ñoma jox cër euh ça vient comme ça naturellement Nous ko sax xaar dañuy jek jek rek Mais bon Pape on a besoin de vous on est en train de faire un truc soit euh, dañu am ben mouvement wala association wala ben ONG bo xamanteni dañ ko bëgg vraiment ben fléau bo xamné day bëgg et je pense que yow yow image ça colle avec euh, li nous bëgg donc est-ce que nous nga ñu ak yow ngir ñu euh, fléau non la ma ci may ambassadeur de la décennie africaine pour 52 États africains, la décennie africaine euh, euh, des handicapés. Donc, euh, c'était en 2006 à Bamako. Donc, Mohamed Fall. il était en mission à Bamako donc yàlla dogal contact à Bamako hôtel contacté avec un très grand plaisir parce que je suis un enfant de la banlieue dund naa sociale xam naa lu metti xam naa social dama doon ñaan yàlla tey sama liggéey ñu dem ba ñu yaakaar ne mën na def dara pour dimbali doomu aadama donc noonu la ma dalee aussi ci Africaire bi ñuy lutter contre la maladie Ebola tu vois donc dama toog sama kër rek ñu woo ma ne ma kat dafa am feebar bu bees boo xamante ni mi ngi def des ravages bu tudd Ebola ñun nag dañ si bëgg a bay suñu waar waa Washington Sous siège de Washington mais dañu bëgg ànd ak yow utiliser cette image organiser une soirée de gala caricative pour vraiment lutter contre la maladie Ebola Nous la ma dalee aussi ci euh, ak ministère de la santé d'ailleurs bii rek du sama trophée titre d'ambassadeur bu ñu ma peut-être que ma juumul sama cinquième titre d'ambassadeur bo xamanteni ñing jox mais lool aussi dama koy santé yalla bu baax peut-être bon samay wajur yar nañ ma yar bo xamanteni ci.

waaye que maa ngi ñaan yàlla yàlla ma yàlla defal sutura ba yaakaar bi ñuy am ci man yàlla boo ko dara yàq donc image bi nga xamante ni yaakaar nañ ko ci man aussi pour di défendre fléau yooyu aussi image boobu yàlla bu ko euh, dara gàkkal quoi. jërëjëf Pape hmm. Pape Diouf rédaction Kéwoulo point info ñu ngi lay man aussi man aussi maa ngi leen di remercier rédaction Kéwoulo FM di leen wax wasalaam kooru jàmm.